sama doole sama xam-xamu bëre sama jom ak sama fit laa ko teg. waaye nag amateur doon en direct de. pay seen affiche point com. Lac nag adversaire bi daf leen a sonaloon Boy Niang dugg fi comme ni ma ko doon waxee rek daan fa six wala sept mbër mu xëy dal ci Lac Lac Lac freiné na Boy Niang Lac fan la jëm. amee ah, waxoon naa ko ko moom waxoon naa ko waxoon naa ko Kaolack dégguma moom dafa mel ni dafa am problème nopp wax naa ko nee naa ko tey ngay gëj dugg di géej maanaam xam nga nit di nga wër-wër ba doo am foo taxaw nga xool ni ni ko père Birahim euh, njaay waxee nee na suñ papa jooju maa ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla fay xolam guddal fanam nee na boo ñaax dafa xool jàngoro yëpp ñëw bu ci tànn ci siti te li mu wax ak a nekk damaa toog reetaan man bilaay père Birahim Ndiaye li mu wax sax xamu ko mu xool jàngoro yëpp xool siti saa waaye du gaaw a wér de. du gaaw a boo ñaax <laughs> moom nga du a wér moom xam na lool sa moom xam na lool sax xam na du gaaw a wér. li nga waxee ni dafa mel ni yow ni nga bëggoon a jëflante ak Boy Niang jëflante woo non li ma ci bëggoon aw ma ko woon à 100 pour cent li ma ko bëggoon aw ma à 100 pour cent sincèrement parler moo tax du ma ci nekk di zible wala di ci nekk naan ma cee kontaan wala di nekk di daw di wër fii du ma ko def. kon ko bëggoon corriger. waaw mais waaw mais aw ma ko ci moom parce la nante la doom mag la quoi léegi fan nga jëm. fi ma jëm luñ dégg géejuwaay rek moom mooy roi des arènes bi loolu lañ dégg roi bi dañ ko digg waa géejuwaay te dama ko digg waa géejuwaay. balaa ñuy wax ci waxu roi des arènes dafa am mbër bu fi nekk yéen ñaar rek yaakaar naa ne yéen a war a mën a tase instant bi ci VIP yi mu nekk combat jànq sa diggante ak Gris Bordeaux lan moo tax waru leen Gris Bordeaux. waaw du ngeen bëre. loolu combat jànq la de mais ah man loolu jaaxal na ma de est-ce que mu bëgg na ko. lam ciy bañ. man dama cee wax ba sonn dama ci waxaat nag. moom moom sama grand la sama gain la maa ngi lay ziar di nuyu Maodo ah taalibe Cheikh bi. ma ne da nga cee wax ba sonn wax ko fii ci Lutte TV ma dem seetu ko combat bi taxaw loolu tax moo tax yéen ñaar leen a bëre yéen ñaar ay ay adversaire de taille ngeen war ngeen a mën a bëre. waaw combat bu neex la mais est-ce que bëgg est-ce que bëgg na ko. lu mu ciy bañ. laaj naa la ko. yaakaaruma mu bañ ko de. Ah, laaj ko la moo tax bëgg ko ba léegi. da ngeen koy poser question bi moom. est-ce que ah du ma nee déedéet waaye moom lan la may xeebee li ma fi def moo gën a baax de waaw moom nag sama gaayan la suñu consultant bi yaa ngi défendre yaa ngi défendre lu jaar yoon. seen président. waaw mu ngi défendre lu jaar yoon te li ma ci gën a neex gis nga dëgg noo koy wax te dee bul na rek lii su ma ko waxee nit mere ma déedéet boo demee ba nekk consultant a consultant ba mu mënti doon boo ba nekk consultant waxal dëgg. loolu nga gis ci loolu nga gis ci moom. déggu lu ma la wax man ba ma taxee mu wax li jaar yoon damay xam ne kii li mu wax lu jaar yoon la ak consultant mu mënti doona ah, boo gisee dëgg wax ko bul gëm parce que dëgg moom moo tax ñu jox la micro pour ngay wax dëgg. mais la nag am na loo xamante ne man de moom personnellement mënu ma ko tey par exemple bari na ñoo xamante ne dañ doon wax naan naan naan Lamine wala muy wax Boucar bu ñu def revue de presse wax leen li am wax leen Lac de Guiers numéro 2 daan na Boy Niang est-ce que loolu suñu cër la tamit. mais déggu li ma la wax. maanaam la nga gis bët kenn du ko abale bët kenn du ko abale la nga gis ngay wax. su nekkoon sa kaala est-ce que yow doo ñu mere. déedéet wala barki yàlla Muhammad bu ma balaa ngeen di balaa ngeen wax sax man maay taxaw na ko félicitation bu fekkoon loolu moo am noonu dama naan ko félicitation déggul ma la li gis taxaw leen ngeen wax ko bul ne rek fi ma ko waxee diw daf may mere déedéet taxaw leen ngeen ne carrément man li ma gis laa wax. kenn loo ci rey parce que la nga a taxaw ne carrément ne lii lii moom moo am bu leen ci làq tey bu fekkoon man la <laughs> saa waay dañ ñaan mooy loolu dañ ñaan la dëgër daanu du du egg sax ñu jox kee victoire bi. léegi loolu su fekkee mi ngi am parce que gis na am na yoo xamante ne dañ koy gis ci làmb par exemple Kaaw Modou Mbaye toog nañ fi man ak yow ak moom fële nga ne ko boo ñaa sa ga la loolu est-ce que tamit mënul dem ba yàq ñun suñu liggéey parce que yéen ñëpp bët boobu ngeen koy xoolee instant bi moo ci nekk loolu mu nekk gaynam la moo ci nekk parce que boo amee combat tey ji bu ñëwee fi mën mu bañ laa loolu dara nekku ci moon na droit nekk gaynam ko neex fan yee passé man wax naa gars yi wax naa ko nañ ma ne jotoo ma ak moom dara billaay wala jotoo ma ak moom dara te fa mu taxawee tàll ma micro dinaa ko tontu ba mu neex balaa mu doon gën a neex nag muy bëri koo xamante ne moom moom nii lañ def bu doon ñëw damay doon naa ko carrément taxal nga interview loolu kese la mais jotuwuñu dërëm maa ngi moom barke alxuraan. amu leen benn problème. wallaay yàlla bi ma tiim man nag kaay ma wax la benn affaire nag de man fu ma dee dëgg moomu fa ray du ma tooñ kenn waaye ku ma tooñ ma wax na tooñ nga ma mais joto maa ngi moom dërëm sama waaye la mu ngi doxal làmb mu ngi doxal lu leer naññ waaw mais dama ne boo leen gisee dëgg taxaw ngeen wax ne dëgg am na. yéen nag a naqaree da may tontu foofu ëmb nga may tontu foofu. Ah, d' accord léegi xam ah, xam nga yow nekkul yaa may posé question man problème bi man ñëw naa man man man man ñëw naa fii ñu ne ma dugg ci kër waa kër da ngay comprendre pression lamb moo demee noonu pression lamb lamb buñ ci tollee gars yi dootuñu wax ne kii moom mooy diw kii moom mooy diw kii moom mooy diw nga combat bu jeexee dañuy bàyyi ñëpp ñëw dugg mais pression combat moom moo mel noonu ñoom du ñu am confiance ci kenn yaa ngi dégg. loolu mooy waral ne bu gars yi bu combat bi dañuy ñëw taxaw naan waaw kii du fi ñëw kii du fi def lii kii du fi def lii loolu rek la mais gars yi nañ comprendre ah ak képp ko xam ne sa micro comprendre na bésu moo demee noonu. après comme sa sa combat ak Boy Niang jour yi ci guddi gi noonu gis naa Sa moom ñëw na fii di zibilé naan fees xaw ma kat appee. waaw sama rakk ji. dafa mel ni moom dafa bëggoon nga fajal koy naqaram de. a ah, waaw magam xaritam di bëre ki nga xam moom moo ko daan. fajal naa ko ndam li moom laa ko may. ndam li Sa Thiès nga ko tuddee. moom laa ko tuddee ak képp koo xam ne Boy Niang daan na dëkk biir géej waay ndam li yaa ko moom du sama ndam de dafa leen koy teel wax pour ngeen xam ko moom ma ndam li yéen ñi nga xam bëri ngeen ak Boy Niang yéen a moom ndam li seen ndam la. guy gi tamit tàllal naa ko micro sa cumikaay mu ne képp ku koy ñaanal fooy mën a nekk si àdduna bi na nga ñaanal Lac de Guiers numéro bu amaatee combat lan mooy donc taxawaayu Lac dellu fay ko borom man ko ma lebal bor rek laa ragal ak maa ragal bor seede yàlla yorul tissu li dama ragal bor man boo ma lebalee dara rek dama la koy fay kuy gi def na loo xamante ne woo na ay nitam yaa ngi dégg. wax naa ko moom nee naa ko danga nga yaakaar ne woon lépp loo def rek ñu toog sama ndob bi taxaw naa kilifa ne ko ñaanalal sama mbërëm sama xarit la te daf ma daf ma daf ma daf ma sas yaa ngi dégg ñooñu am ñu ci génn woo ma téléphone dama guy gi dem mu ngi sonn sa bés bi kon donc maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla bàyyeek ki nga xamante ne mooy waajurami bàyyi ko ak mère Wari Sarr suñu maman bu baax boobu noonu ak nas mu yor léppam. Balla Gaye de moom dafa insister ba taay ni ak lu mën a xew Lac de dina am ndam fan la ko tegoon ci liggéey boo nga doon liggéey la wala da ci doon jàpp moom tamit mystiquement. bala Gaye lépp la jàpp Balla Gaye jàpp na ci mystiquement Balla Gaye jàpp na ci lépp bàyyiwul dara. kon kay yéen da ngeen gisagul dara sax ba muy bëreeg saa kees sotuñu saa ñoo ko sot. ah saa waay nag fii noonu la rek de géej waay ku fi laal kenn gi dinañ sot loolu la rek. kon waa Pikine dañoo euh, saa kees. ah ñoom ñëpp a gërëm woon pour boo daan saa mu daan ko ah man tam géej waay ñëpp jàppale mañ mbëri ndaw sax woo nañ seen sëriñ moo tax mbëri yëpp laay sant ñëpp woo seen sëriñ ku nekk. kaasu fonde bi nee na naan nga xaaj bi. ma ne fonde boobu. <laughs> wax naa ko neex sa kaas fonde amul suukar xaw ma kan moo ko toggal fonde boobu noonu man daal damaa ñëw ci bisu làmb ci def ni fonde bi capp samba ne nii saful sax suukar mu bëgg ma naan ko ma ne ko tey nag dinga nga ko naan ba mu jeex tàkk naan na fonde bi di nuyu sam papa déggul en <laughs> passage kaasu fonde bi yow naan nga ci <laughs> ah? di naan képp koo xamante ne. fan su booy ñaa nga ñëw nga ca làmb ja. mais seen ñaari entraîneur yi naroon a xeex nag ron ak sa xës. non xës booba ah, maa ngi koy nuyu grand bu baax la. kan ku mu mbëkk. borom kogol bi door na ko épaule foofu. loolu kii la rek charme làmb la rek. waaw maa ngi koy nuyu en passage ah. coach booy ñaa boobu noonu. maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal jàmm ah. parce que tey euh, sport la dégg naa après kàddoom yi wax gi rafet na maa ngi koy rafet lu baax noonu la kilifa di doxee. waaw kilifa ni mu war a doxee moom mooy ni si boo Niang doxee na gars yi xam na ne dama gars yi bëgg gars yi indiwaat seen xel ci cadre coach yi bu coach si bu ñàkk amee bu defet amee ñu ne coach bi def fi dara parce que déglu parole lu mu wax lu am solo la yaa ngi dégg parce que loolu mu wax noonu man tam dal na ma yaa ngi dégg kon donc nañ bàyyi ne coach si ñoom ñooy yàq coach yi li ñu war ñu ngi koy def ñu ngi na mbër mi ñu ngi veillé ci li nga xamante ne moo war ci bésu làmb ji kon buñ ne rek ñàkk na rek ñu ne coach yi la na booy ñaa jàppaat coach sam bu baax a baax a baax bu la kenn jaxaseeg moom da ko jàppaat bu baax xam na def na warga def na coow na xuloo na yaa ngi dégg yooyu yëpp def na ko fi loolu lépp charme lamb la ko préparation combat bi sa combat ak Lo nga bëre jóge fa bëre sa combat ak Boy Niang préparation boobu ak bii nii lan mooy différence na wute na parce que tey bii ah, dégg ma fii ci combat bii ni amu ci benn manquement de amu ci benn manquement entraînement yi peut-être bii moo gënoon metti. côté toppatoo laa wax. <laughs> ci côté boobu yaa ngi fay dugg de te bu ma fa duggee day xaw a day kii bi day xaw a yàqu émission bi moo tax boo seetloo sax bëgguma di wax ci ay waxam waaw ma di wax ci ay waxam ko parce que jour bañ ne suba la combat bi vendredi gi ci vendredi demoon naa armel ya ñaanal ko parce que moo nekkoon premier combat boo xamante ne fekkeewu ko yàlla jëlee ko fi yàlla yàlla yokk leeram moo tax bugguma di wax ay waxam su ma gëmuloon yàlla tuuti rek dinaa wax ba saalit mais maire bi moom su may wax ay waxam sama xol day tooy bu baax a baax a baax dama koy faral di wax gars am na benn émission Modou bi ma seetaan. Modou Lo mu ne yaayam la gën a nekkal xarit ah maa ngi koy dégg mu koy wax di ko na gën a ngoy ci loolu ak képp koo xamante ne ngoy nga Balla boo gisee ma gën ko téye dafa bëgg waajuram bu jigéen am na nu doon feebalee ci waajuram bi dama koy moytu ak ku mu mënti doon Alioune boo gisee ma ngoy ci moom dafa bëgg waajuram bu jigéen damay gis ni muy kafeeg moom des fois mu sol ay yére yére yoo xamante ne yére yaayam la yére jigéen. bi ngay tuus gis naa ne dañuy wan euh, tons génn jékki-jékki rek wan la photo ci ni ngay tuusee noonu instant boobu sax gis naa mu mel na nga aalul. waaw parce que ñoom xam nañ sama point faible xam nañ ne sama point faible la euh, ma ñëw jour boobu noonu waaw contrôle ma ma yóbbee loolu lépp su ma contrôle sama ronga dina wadd parce que mbay si sax ma doon. mu ngi ma doon waxal li nga xam ne sama yaay kàddu yu ma doon wax xam nga mbay si maa ngi waaw parce que kàddu yu ma doon wax xam na ne bu ma waxee loolu dinaa doon gaynde par force moo tax mu am kàddu yu ma doon wax yoo xamante ne sama yaay mu ma doon rappeler sama yaay li ma doon wax yaa ngi dégg may may may may mu yokk ma àll daal tons ñëw wanate ma t-shirt bi ma xam na ne bés bi ba kenn mooy des si biir stade waaye du ma daanu wallaahi waaw képp koo xam ne sa yaay ngi dund daal yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla guddal fanam amu ànd ak wér. léegi bu loolu yëpp jeexee mu ah, moog àdduna ñoo ànd la kañ nga takk soxna. <laughs> sawar la eh nga nag feneen foo xamante ne nooyul yàq nga lépp bi yëpp yàqu na kañ lay takk soxna waaw. wala caméra bi bu fekkee yemoo ci da ngay am problème rek kañ ngay takk soxna ak kan ngay takk. pël laa bëgg a takk pël. non pël mënoo koo takk pël Babacar a koy takk. Babacar mooy takk pël. pël sañ nga maa war. pëlee. Eh. pëlee eh, sañ nga maa war yow. <laughs> waxal kan ngay takk. Oh, kañ ngay tak sax du ma la du ma la laaj sax kan ngay tak mais kañ gay tak kañ lay takk léegi rek incha allah yàggatul dara dara dara yàggatul dara léegi mu ñëw. jot na de sa morom yëpp am nañ soxna nag. yii jot na loolu boole ma ko waxul boole ma ko waxul yëpp ngeen wax ngeen ñàkk wax. jot na te nag kaay ma la benn affaire nag de maa ngi koy maa ngi koy nuyu ah waaw maa ngi koy nuyu maa koy nuyu. ci ñoom. ah ci ñoom. bu ma dugal nag yow tamit ànd ko daal borom baax la xol bu rafet la yor maa ko bëgg. dafa xees wala dafa ñuul. <laughs> dafa ñuul xees xees ñuul xeereen ñuul. nag nar ngaa ndax ñu bari kon <laughs> ah. am nga bu xees am bu ñuul am bu xeereel. Eh, defal ndànk waxuma la am naa bu ñuul dama ne dafa xees ñuul xeereel ñuul xees dama jaxase mélangé xaw ma ku mu ci doon nag en tout cas daal dinaa takk soxna. ci kenn nga jiitaan. <laughs> dégg nga ko en tout cas daal dinaa takk soxna daal ci kàttanu yàlla. aywa looy tàggatoo. waaw li may tàggatoo xanaa di wax waa géejuwaay mbëru géejuwaay yëpp mbëru géejuwaay yëpp bàyyiwuma kenn ah, ndax su ma fi nekkee di cité damay juum. mbëru Guédiawaye maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu képp koo xamante ne ñaan nga ndax bés boobu la dëgër am ndam maa ngi lay sant di la gërëm sama papa yi may dajal géej sama yaay yi may dajal géej sama morom yi sama rakk yi képp koo xam ne ñaan nga ci combat bi yal na la yàlla fay soxol képp koo xam ne téye nga benn per nga ñaanal ma pour yàlla may ma ndam maa lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla yàlla na la yàlla fay sa xol yàlla yàlla yokk ci barki Seydina Mohamed du nuyu waa géej waay yëpp monsieur le maire Alioune Sall suñu kilifa ñun ñëpp biir géejuwaay drapo bi incha allah yow lañ koy indil bu neexee yàlla nee naa la woon drapeau bi dinañ la ko indil te dinañ la ko indil incha allah bu neexee yàlla di nuyu suñu papa Diaw sama papa Diaw sama lépp moom ne dañuy dem ba Kolda incha allah bu neexee yàlla waaw bu neexee yàlla dinañ dem Kolda Sédhiou Ziguinchor yooyu yëpp waaw incha allah bu neexee yàlla di ko nuyu di nuyu di nuyu seex yi fa nekk ci kër ga seex jigéen yi maa ngi nuyu ñëpp waa kër gi ñëpp. Gambien moom jour bi làmb ji jóge ah. kooku moom mention spéciale Gambien dafa sonn ci ko Abdou Dramé non kooku aw ma fayam wallahi grand bu baax a ngi noonu ku gore ku ñàkk ñaan kooku yàlla rek lañ koy bàyyil yàlla na ko yàlla fay xolama ah. guddal fanam di nuyu sama grand Abdou Diouf liiru jaan Abdou Diouf moom ah. kan buuse non buuse moom <laughs> kooku moom kenn wax la ay waxam ndax buuse daa fa am na mes am na vidéo am sa bi jot naa ci nag bul yaakaar ne jotuma ci vidéo bi jot naa ci. yim ci wax yëpp dégg naa ko te bés boobu noonu noonu la ñu bëree. mais dafa am journée bu am solo bu ñu jëm nag foog ma laaj la ci Fallou Ndiaye moo ko tëgg le 27 combat grand combat bu war dox ci diggante Tyson 2 ak Gora Sock bu amee combat spécial am solo doomu dangu feu rouge Franguer Mama Lamine Jokkel journée boobu loo ci wax ris na de. waaw mais journée boobu neex na trop ay champion rek ñoo fa daje ay champion rek ñoo ci daje. journée bu riche nag la Fallou Ndiaye tëgg nag Fallou maa ngi koy ziar en passage di ko nuyu di ko sa journée bi yàlla na réussir ak jàmm ci barke Seydina Mohamed. ay jeunes de Gora Sock noo gisee combat bi. non bu neex la combat bu neex trop waaw Tyson 2 ndaanaan la euh, Gora Sock ndaanaan la mais ñoom ñaar ñëpp ku ci gën a liggéey rek di nga am ndam. doomu daangu feu rouge. doomu daangu feu rouge doomu maa ngi lay nuyu. te su ma nee la maa ngi lay nuyu rek am na lu tax ma la maa ngi lay nuyu doomu dangu maa ngi lay nuyu di la bége waaw di doon rek kàddu gu mu mënti wax rek yes na sa biir nopp bi te ki tax ma ma koy nuyu sax dama koy nuyu en passage muy Maria di sama rakk di sama xarit Maria Tëngéej la dëkk waaw maa koy nuyu en passage di ko ñaanal yàlla Maria non xaar ma ñaanal Maria pare parce que Maria sama xarit la sama lépp la day sonn sama combat yi Maria. maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal jàmm ah, di nuyu waa këram gi yëpp yaayam papaam waa kër gi yëpp ñëpp maa ngi nuyu ñëpp magam bi jigéen bi mu nekkal yaa ngi dégg maa ngi nuyu ñëpp di nuyu tamit sama xarit Omar mooy rakkam bu ndaw bi maa ngi koy nuyu en passage. combat boobu nag combat bu neex la ah, que le meilleur gagne. ku dàq xeex doomu daango ak Feu ci li nga gis ci ñoom. ku dàq xeex ñoom ña ah ñoom ñaa ñëpp mën nañ xeex. mais ci la ñu wane man ak yow man ak yow ñëpp mënuñoo xeex. ah doomu doomu Dangu moom moom moom dégg naa droite xaw ma droite la xaw ma gauche la waaw gauche bi ku mu ko dóor da ngay nelaw <laughs> ah na saa waay jàng rek xeex rek bañ a loolu kooku boobu dal ko. Fallou Ndiaye ba léegi mu nekk ci système bi nga xamante ne moom moom la seen promoteur nekkoon mu pay per view loo ko encouragé la wala. waaw moom moom pay per view lay def waaw mais pay per view lu rafet la lu nice la parce que tamit bon lu ñu lu ñu soxal moom mooy luy jëmal làmb kanama ah. parce que bu lam bu jëmee kanam rek mbër yëpp dañuy jëm kanam yaa ngi dégg mais des fois nag il faut ñuy sërëxal di dimbali ñi nga xamante ne ñu ngi nekk ci village yi bëgg a seetaan combat yi ah amuñu pay loolu tamit daf leen di ah, waaw ñu ut ci pexe daal wax ma buñ ko def parce que luy jëm mais nañ ci ut pexe pour mën a dimbali ñooñu tamit seetaan ma ñooñu rek laay jooyal fu mu ne nii parce que dañuy am mbër bëgg a seetaan duñ ko mën a seetaan yaa ngi dégg dafa métti daal. bég naa ci yow.